waa kii kan la waay kii du l'ami des jeunes filles très branché même moom la kay boroom jëkkër bu ñu xuloowee sax dama lay sang ba nga set ma diw la ba nga tooy dàmp la ba nga niin ma di la xëcc di la mëcc di la ah di la ma togg reer jox la nga lekk ba suux bu ñu tëddee maa lay njëkk a dompat daanu ci sa kaw di la mëcc te terewul dañoo xuloo soo ci waxee xale jigéen ñi daw songu la jëkkëram la elle a droit de vivre sa vie comme elle le sent jëkkëram la ay ca jëkkëram la mais elle doit rester dans son coin yi muy def nii moom la engagé moom la regardé regardé wul bi lan la ciy publier lii du affaire caga lii muy def nii génne leen ko ci caga tëdd di marsa jëkkër même bu la lewee doom loo ciy filmer di ko dugalal ay xale yu ndaw réseaux sociaux yi xale yëpp a ngi ci lan la ciy dugal responsable bu mel ni Nabou Daas boo waxee ñu ne da nga koo bëgg tu yéen a ko bëgg suba x la